sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey alhamdulillahi mawlid aysi wa safari man kaana fi adari aw kaana fi safari alhamdulillahi mawlid aysi wa safari man kaana rabbil alamin wa sallallahu ala alhabibi almustafa sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima mbokke M-Media Group Nour Daarayni noo ngi wéy rek continuer jàll fi ñu yemoon ci xasida ak asindiit ñoo ngi waxoon nekkoon ci saxaaba yi di wax eh, saxaaba ñoom itam noonu lañu amee ay xejj ak ñi ca topp ñi ca topp ndax gis nga ñeenti saxaaba yi nga xam ne ñoo wuutu yont bi sallallahu alayhi wa sallam leen di wax alxulafa arrachidun al arbaa alxulafa wala arbaa arrachidun abu bakrin omar othman ali te am na ñeneen ñu ca toppaat ñuy wax al asharatul mubassara bil janna fukk yi nga xam ne yont bi sallallahu alayhi moo desi moo leen dessiné bégal leen ci ajana eh, am na ñeneen ñu ca toppaat ña fekke woon badar ña fekke woon badar trois cent treize ya ak ña topp ñëpp ci ay saxaaba sëriñ bi bi mu ci jógee dafa wax ci eh, borom ngir yi borom ngir yu sell yi imaam malik imaam shafii imaam abu ngir ñoo ci réew ya ni ko sëñ ma Ka di waxee rek imaam Malik nag ngërëm dafa diggu doomu woon dafa diggu doomu woon lool ndax moom da doon jëfe amalu ahlil madina suñu wootee ci mbir mu delluwaat ci waa madina nuñ ko jëfandikoo mu mu koy jëfee noona moom it dafa bokk ci ñi nga xam ne itam dañoo bokk ci ñi géeju ñi gën a géeju ci addis ba téereem bu siiw al Muwatta mu def ko ci ahadis nabawiya sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen ak yeneen mu déggan addis lool dégg yonte bi sallallahu alayhi te war maalu ko lool sëriñ tubaa itam daa nañ wax naan nag aleykum bil malikiya fa innaha mutaharatan munawara na ngeen jàpp ngiram imaam malik ndax ngir la mu am ak sell la ak ak leer ak ak wax naa bu ngeen gisee may jëf leneen yéen ngeen jàpp ngir imaam malik rek ndax man dama am sama ay jago ah, man naa ba ci yeneen ngir ya naa jàll ci ba itam ahlu sunna wal jamaa di déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga ko ñoom boroom xam-xam yi noonu lañ binde woon kenn ku nekk bind ci eh, xam-xam eh, bind ci addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral bindi bind ci sa déggin alquran bind ci fiq bind ci lépp la nga xam ne bi mooy doxal dundu doomu aadama ci sarihat islamiya te doonte am nañu ay benn benn wuute ndax mbokk yi damay wax ne wuute koo xam ne wuute day tax nga bàyyi ko xaj na ñi nga àndal du bari soo ne man de kii man dama nekk ci yoonu Serigne Touba génn ci école mu jàngal ma yar ma ci murit damay bañ ki nga xam ne damay noonoo ki nekk ci Tijaan wala ma nekk ki nekk ci ñaseen wala yeneen yi soo leen noonoo kon day mel ni déggoo diine déggoo lislaam te kon ñi ngay àndal du bari waaye ñoom ñi dañ doon wuute te teewul ñi ànd ndax am na ñuy dëppoo ndax dañuy wax ne daal ixtilaaf moom mënta ñàkk mooy wuute waaye iftiraq teqalikoo xàjjalikoo wonante ginnaaw loolu daal mooy li nga xam ne bii moom baaxul ndax itam ixtilaaf mooy kii julli yëkkati ay loxoom teg ko ci dënnam kenn ki di ko wàcce kii julli wax bismillah kenn ki di wax alhamdulillah kiy julli imaam bi di xutba di ko wax ci arab kee di xutba ko wax ci arab ak wolof ngeen wuute ca yooya yërmande la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xam-xam yi yërmande la ñoom noonu lañu ñu wuute waaye ixtiraax nag mooy li xew ci suñ jamono ji di takk takfiir ay nit ab yéefar nga ab bokkaalekat nga nangam nangam génn nga diine nangam nangam naa fiq nga xam nga yooyu yëpp nag nga di ko ñemee wax jëm te yonte bi sallallahu alayhi wa sallam naa fiq li muy bari bari yàlla noonu na ko xamaluma leen nag waaw man maa leen xam nga xam ne yonte bi sallallahu alayhi wa ci néew daal la xamoon nga xam ne naa fekk moom dafa jafe xam kon loolu moom mbiru sa la moo koy àttal boppam ñooñu sëriñ bi tudd na leen ñoom ñoom ñëpp waaye nag tudd na itam mbir yi nga xam ne bii ca moom fa moom la nekk dama wax na yàlla moo nekk ci mbir yooyu waaye mbir yooyu ñoo nekk fa yàlla ndax yàlla lépp a nga fa moom euh, mu mel ni euh, lawxu bi euh, àlluwa ja ya nga xam ne coo ca lañuy bind lépp wa indahu umul kitaab am na fu muy wax ne itam yamxu laahu maa yasaa wa yusabit yàlla moo xam lu mu bind ci àlluwa ja moo xam lam cay far xam nga itam ne xarima ga itam moom lay bind loo nuun wal giñ na ci ak big boobu yonent bi sallallahu alayhi ak big ba ñuy binde nuun wal xalami wa ma yasturun ak lañ cay bind ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ne yonent bi sallallahu alayhi du ab dof <laughs> kon loolu leer la xalam xalam eh, yi nga xam ne bi foofa ca borom bi ak xars aras mi nga xam ne nag moom borom bi la yemoo istawa alal xars eh, nee yàlla dafa yemoo ca ars waaye nag nam ca yemoo nag moom moo ko xam nam ca yemoo moom moo ko xam dañuy wax ne al istiwa u imam malik dafay wax ne istiwa maalum yemoo gim yemoo ca arasa xam nañ ne yemoo na ca waaye alkayfiye majhul waaw alkayfiye majhul nam ca yemoo nag loolu moom moom rek kenn xamu ko luul moom waaye aswaal minhu bidaa waaye laaj ga nam ci laaj yooyu moom bu ci dugg wala tasalu an an an asiya in tubda lakum tasukum su leen laaj leen ni buñ leen ko waxee rek mooy bamb ci yéen di aw naqar bu ngeen ko mën a attan leen laaj rek lu mata xam waaw noonu la indee bu ñëwee nag muy indi téere yi ñeent téere yi di ñeent téere yi mooy tawraat mooy injiil mooy sabuur ak forxaan alxuraan mi nga xam ne yooyu téere yépp ci la dugg nag yooyu téere yi yépp ci la dugg ndax alxuraan bi mu ñëwee mboolem atte yooyu yëpp dañ koo nasaxal mu dugg ci alxuraanu karim téere yooyu wax nañ ne eh, ni mu doon deme am na yu doon nekk sax ci langue yi ñam ko doon yónnee Isa xam nga comme ay français lañ bu fekkee ay français lañ wala ñu doon làkk kii france rek la téere bi mën a doon su fekkente ne ñeneen ay anglais lañ anglais lañ mën a doon bu fekkee ne ñu ay xept yi lañ wala ay alxuraan nag moom ñu ne am sax naa quraanan jax naa quraanan arabiya alxuraan moom arab la lépp dafa dugg ci moom dafa nasaxal téere yooyu seen ab àtte doxatut lépp alxuraan moo ñëw supérieur leen ndax mooy téere boo xam ne kitaabun majidun min majidin mu majidin li abdin majidin na war a sarxawal xarba kon téere la boo xam ne benn rek la nag benn rek la ci la sëriñ bi di jóge nag bu ñu ci téere yi nag ak ñi mu tawasul ñi ñëpp nag o xam ne yoon wi ne yoon gudd la ku ne xam ne ne borom bi tabaraka wa taala su ca tàmbalee waaye tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tawasul ci malaaka yi tawasul ci e, yonent se tawasul ci saalihiina yi ñu baax ñi tawasul ci ñoo ñëpp ñëpp ñëpp ba ñi mu tudd nii borom ngir yaag malaaka yeeg ñëpp wax seen mu bëgg aw am na yoon wu mu bëgg aw mooy yoon wan yoonu gaa yu baax ya yoonu gaa yu baax ya ci lay wax nag ne baleex salaat yi wa taslimi alayhi lahu wal ali wa sahbi wal aswaaj wala gis rek mi ngi tàmbale yàlla wa bil waaye bi mu ma bàyyee ci ñi mi ngi ko tëjee woon na nga julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam sama julli ak sama sëlmal na nekk ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak saaba yi ak ay soxnaam ak waa këram ñëpp ñëpp kon saaba yi dugg na waaye azwaaj yi nga xam ne tudd si ci cité bi fii fii itam dugg na <laughs> kon sëriñ bi mbiram dafay matale ci lay tàmbali nag wa asbilan na lay na rabbian fiyatan wa hablanal xasda fi daarayn yàlla loolu mooy liggéey bi nag tàmbali nag ne ah sa borom na nga sëmbër na nga ma sëmbërtalal jàmm na nga ma sëmbërtalal jàmm jàmm yoo xam ne xayru afiya aafiya la waaye xayru aafiya wa habli aafiyatan xay xayru aafiya may ma jàmm joo xam ne jàmm ju du dagg la mu daal di jëfandikoo nag feelu amrin boo xam ne feelu amrin rek doyen waaye mu def ca nuun tawkiit waaye nuun tawkiit rek doyen na waaye saqiil kon la may wax ñor na ko kon ku ne xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko doon bàyyi xel ndax ñi li muy bari bari lii la tëje ndax waxoon na ne baax na li ku di man la o maa xuulu ana wasilati a rasulu man de mbir mi li muy bari bari yontu bi sallallahu alayhi mooy sama wasila mu daal tàmbali nag yàlla nag na mooy jàmm waa yow ndax ñi ñëpp ñu tudd fii ñi amu ñi ci amul jàmm ak bu ñu fañ jëm ñi ñi ñi ñi ñi rey ñi ñi salbu ñi ñi jàmm ñi ñi daggte ñi ñi blessé ñooñu amuñu jàmm seen liggéey aku mu ne nag ginnaaw loolu la nag taman am na fu ma jëm waxab la nal xasta lu wolof di wax ku lakk mburu tudd dëkk na sama sama jubluwaay bii ñaari kër yi nanga nga ma sambërtal jàmm mu tàmbali di ñaan nag mu tàmbali di ñaan mbokk yi xam naa ñu taxawul foofu rek